بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ونالا نمني مبوك الخان السنية بدل نزيار خمنا أجوي مم لكو تعود جغل مي لير اللي نخمنا وخونا نجنك دنكي نيو تي تنبي تم أجو تي تنبي دي والو جامو يالا تي أنا مبو خمنا أمود لي تي الإسلام أمود لي تي شريعة Eh, waxoon nañ ñu ci leeral ñaari mbir yoo xam ne dafa mel ni ba tey leerul ci bopp nit ñi eh, su ma ma jublu ci nit ñi nag mooy ñu nga xam ne wooye nit sax jamono ji dama ciy sikki sàkka ndax leen yàlla jox ñu tax ñuy ràññele nit ak mala daa mel ni ñoom dañ koo jël teggi sànni fële eh, daa mel nag ne mbir yi yenn saa yi may jàpp ne leer na seen bopp ñu tey teylu yenn saa yi may jàpp ne ba tey leeru seen bopp moo tax rek ñu ci waslu àq di gën a leeral eh, li nga xam ne moom la bëggoon leeral ko mooy sunna tarkiya eh, teg ci li nga xam ne mooy lan mooy àtte tënku lu islaam boyal ak lan mooy boyal lu wala bokk lan mooy àtte boyal tënku lu ak lan mooy tënku lu islaam boyal la chakkan ñaari mbir foo ñu xam ko xam lan mooy tënk lan la charia jublu ci tënk luñ doyal lan la boo xam ne jublu ci tënk luñ doyal def ko bidaa ak lan mooy atteem mooy bidaa ba am naa ci lool lay tàmbali damaa jot benn audio boo xam ne ka cay wax benn mm, waaye la bu tudd tafasil la boo xam ne yàlla subhaanahu wa dimbale nañu ba ñu wane ñëpp ñoo xam ne dëgg tax na jug ne waa ji aluwam soriwut daf koy gën di wane nag. waaye da cee dolli benn mbir mu ñeme yàlla ak mën a meew mën a kàcc mën a kàcc googu moo ko yóbbee tey ci mu jël sama audio di ko tontu ba mu ko dégloo ba pare dama yéemu ci yàlla sunu borom vidéo yi bëggoon na ko wàññee waaye lu wàcc ma ko fi alxuraan sunna ndaxte ab vidéo la jot ma audio vidéo la jot te ndax chaque ne ñoom seen YouTube la te seen YouTube boobu la chaque la ci nekk mooy ay ay naraki sos ak euh, loo xam ne du yóbbu nit ki mu avancé nii ci àddunaam nii ci laaxiram moo tax ñu daal di koy bañ a dugal fii euh, ngir bañ def publicité euh, youtube mel noonu dem daan yi daan yàlla ndax la chaque ne lii pas-pas ahlu sunna mooy duñ tasaare lenn ni ahlul bida li tax ñu si wax sax mooy lu munta lu munta ñàkk la ak dimbali gi ñuy dimbali ñu mën a leeral mbir yoo xam ne jàppoon nañ sax lenn ci nit ñi ndaxte wax nañ ko ba sonn fii wala répète nañ bu sonn asatise leeroon nañ ko ba sonn waaye da bokk sax li tubaab yi wax naan euh, la répétition est pédagogique kon tafasil la moomu noonu ojum boobu lay jël wala boog vidéo boobu la mu ca wax ay mbir euh, ngir mu permettre ñu leeral li nga xam ne mooy lan mooy boyal euh, wala tënk lu lislaam boyal suñu baree ci loolu daal di dem ci nga xam ne mooy sunna tarkiya suñ ko mënee tàmbalee jeexal tey ci guddi ñu jeexal ko suñ ko jeexalu tey ci guddi gi ñu daal di koy jeexal euh, suba bi idnillahi subhanahu wa taala moom la bëgg a attirer attention nit ñi mooy euh, lii nii li ko tax a jóg du tontu tafasil la mooy li ko tax a jóg mooy leeral mbir yi nga xam ne bu ko naan bu koy leeral maa ngi dugg déglu vidéo bi nan ma ko déglu sax def wàcc audio ci alxuraan sax dama naa déglu xool lan la ci wax ngir peut-être euh, wadd gi dina waxte loo xam ne man dina ci permettre ma jaar ci ba leeral loo xam ne sax peut mun naa munoon naa ñoo leeral ko fàtte ko. mu demee na ma ko foogee woon waaye moom jëm moom taxuma jug ndaxte la ma bëggoon leeral donte pareegu ma des na ma ab audio ko jeexal ci wane moom xamul dara dafa ñeme yàlla day rëy làmmeñ loolu leeral naa ko ba ñëpp ñam xel xam nañ ko am nañ ci retour yoo xam ne xam nañ ne eh, ña ko jàppee woon dara sax xam nañ ne kii moom nekk te yoo yoo yoo ba pënd bi wure xam na moom boppam ne ndax ci fas la nekkoon wala ci mbaam eh, nawloo ñu ko ci eh, ci côté intellectuel la chaque ne ku dégg fi may waxee li may wax ne laa faxar xëy dafay dafay laaj ñu wax ko nit ñi xam ko may ne tolluwuñu niveau intellectuel nag moom la chaque fii loolu day mel ni mooy géej gi am na ndox boo da ngay gis dafa may waxee sax da ngay gis daa am problème dégg ko waaye li nga xam ne moom may gën a mën nag tax nit moom su ma lay waxaat ak yow dama lay ñëw wan la rek jàppee la ab nit koo xam ne ab sagar la di la leeral waaye jublu ci nit ña mooy li nga xam ne daa feeñ ci yoo xam mooy ñime yàlla mën a fen mën a kàcc nga xam te feeñ na ci urjum bi euh, nga xam ne li moo tay li muy def nga xam ne dina juum waaye li def ko xam ne kii waxu rëy lay wax waxu koo xam ne xam na ne amatu pexe waaye soo dégloo mu ngi tàmbale ne euh, euh, damay damay comédie te finalement la mu wax ne nee na man ma moom la mu wax moo dëpp <laughs> la mu jàpp moom <laughs> kon loolu comédie amu ci doon te la muy wax ne loolu moo noonu la chaque naa ñëw Euh, ñàkk xamam ak ñàkk jàng masala yi moo ko war moo ko waral waaye jàng jàngu ko da koy foraatu waaye ñun dañ koo jàng euh, lu ñu foraatu ak lu ñu jàng nag mënut a bokk te dina leer fii nga xam ne kon moom la ñu wax lam ci xam euh, bariwul li may rek mooy moom taxumoo moo jug ci leeral bii nii waaye nag moom lay jël def ko comme koo xam ne damay permettre benn tremplin boo xam ne ci lay taxaw bonde ngir daal di bëgg a leeral li li nga xam ne moom lay moom lay leeral bi idnillahi subhanahu wa taala kon tamhid bi la bëggoon def rek maa ngi njégalu ci guddaay bi ngir léegi daal di egg ci mbir mi fekkee ne lislaam dafa ñëw daal di boyal ab mbir foog ñu bàyyi benn xel mooy ne lislaam suñu waxee boyal na ab mbir dañuy xool ci ban anam la ko boyale mooy lislaam mën naa boyal ab jaamu yàlla boyal ko ci ci adat ba nombre bañ koy def mooy digle na nañ def istixfaar waaye waxut ne tàngami euh, istixfaar lañ war a def wala nangami istixfaar gu ko def am na yiw wala nangami istixfaar lii mooy xukmam kon da koo boyal ci adat ba euh, walla mu ñëw boyal ko ci li nga xam ne mooy bis ba day digle ab jaamu yàlla julli ñaar rakka waaye nëwul tënku ko ci ne bi sàngam ko ko def am nga yiw sàngam wala bi sàngam xukmam mooy sàngam da koo boyal rek nit ko bis bu mu ko ne baax na mun naa ñëw boyal ko ci sabab ba daal di digle alhamdulilah waaye waxut ne eh, ku ubbali war nga wax alhamdulilah nit ko ñëw moom tamit daal di ñëw wutul ko ab sabab wutul ko ab ab ab saa moom saa bu amee defee su ubbalee wax alhamdulilah lislaam moom daa boyal mbir ba ci sabab mun na koo boyal tamit ci waqt mooy daal digle ab jaamu yàlla daal ne jaamu yàlla ba nit ki mun na koo def euh, waxtu bu ko neex te waxtu bu ko neex tamit amul sa amul waxtu boo xam ne am na fadl bu ci am waxtu sàngam ak sabab sàngam tayib wala mu daal di def digle ab jaamu yàlla digle ko ci ab kayfiya ndax mënuñoo tasawur ab jaamu yàlla boo xam ne amul kayfiya loolu moom verne euh, <laughs> mun koo tasawur kon la nga xam ne mooy mu ñëw daal di defub jaamu yàlla ci kayfiya boo xam ne euh, walla daal koy boole ci ay kayfiyaat yu bare bare bare bare am ku ñëw daal di koy tënk ci benn kayfiya euh, kon day fa la ñu xamee ne kon tënk ba mooy lan mooy imma day tënk nit ki day tënk li nga xam ne mooy euh, li nga xam ne mooy adat ba wala mu tënk li nga xam ne mooy bis bi wala mu tënk ko ci ab wala mu ci li nga xam ne mooy ab waxtu wala mu tënk ko ci li nga xam ne Euh, mooy ab kayfiya waaw ndax léegi nag képp koo xam ne léegi dangaa jël lislaam la mu boyal da ngaa jël yow saxoo ko di ko defee ci ab bis di ko defee ci ab kayfiya wala boog di ko defee ci ab euh, ab waxtu saxoo ko mooy saxoo ndax kooku euh, borom xam dañuy wax ne mutlaqan su ko defee noonu rek def na bidaa loolu amul borom xamoo ci ah borom ahlu sunna ijtimaa yi ma xam ñi xam ne ñoom lañu askan na la ku ko wax te loolu laa wax ma ne loolu lañ koy tuddee iltizaam ndax damaa wax ne iltizaam boobu mutlaqan day doon sunna mënut a doon bidaa mu kàcc fenn ne dama ne iltizaam boobu noonu day doon euh, sunna lu ko ci yóbbee xamul li iltizaam moo tax ma ngi liy wax yi borom ne xamul lu ñuy wax déggut la nga xam moom laay wax suñu waxee iltizaam ci làkku arab mooy lan mooy saxoob mbir moo daawoo benn mbir. kon nit ki mën naa jëlub mbir saxoo ko yàlla subhaanahu wa taala daal di digle eh, nañu jublu nañu qiyaamu layl nit ko moom mu saxoo di qiyaamu layli samedi bu topp samedi bu jot mu daal di qiyaamu layl ndax kooku dañuy wax ne eh, moom dafa tënk lu yàlla subhaanahu wa boyal dañuy xool su fekkee dafa jublu ci samedi boobu ne samedi dafa am fadl moo tax mu jublu ca jaamu yàlla ci samedi boobu noonu di ca qiyaamu layl kooku la chaque boyal na tënk na lu yàlla subhaana taala boyal waaye fekkee ne dafay julli samedi bu jot la tax muy julli samedi bu jot nekkul di caa jublu samedi ba waaye lam ci jublu jublu mooy lan mooy di caa jublu ne moom dimanche du liggéey yeneen bi sëb day liggéey kon kooku chaque samedi mu julli qiyaamu layl saxoo ko. ndax kooku dañuy wax ne tënk na lu yàlla subhanahu wa taala boyal kooku lañ koy mooy iltazama iltazama lan luxatan moo tax boroom xam-xam yi dañ lay soo demee ci téere yi xam ne ñooy ñam euh, ci téere fuqaha yi dañ lay taarifal lan mooy iltizam euh, luxatan ak charan kon la ma wax iltizam ba nga xam ne mooy du euh, nekkut bidaa mooy ka nga xam ne dafa jël jaamu yàlla ba de ca jaamu yàlla waaye la ko tax a jug du bis ba dafa saxoob jaamu yàlla boo xam dañ koo bo dañ koo boyal waaye la ko tax a jug nekkut ne bis ba la wala ci am jubluwaayam euh, waaye la ko tax a jug mooy ne moom nii la mën a organiser mbiram moo tax mu koy jaamu yàlla bis ba kooku laa wax ne la chèque kooku amut borom bi wax ne la mu def bidaa la waaye su fekkee di caa jublu bis ba nag xatta su fekkee saxoowu ko kooku tënk na lu yàlla subhanahu wa tënk na ko ci pas-pas ba mu ca ñam mun na koo tënkee ci xukma ba mu koy ba mu koy jox mun na koo tënk ci fatlu ba mu koy jox lislaam joxu ko fatlu fatlu bis boobu léegi borom xam mi kon suñu jëlee iltizaam dafa am ñaari ñu jublu iltizaam bi nga moom la fuqaha wax mooy ki nga xam ne dafa jëlub ko boppam loolu la chekk ne ku jëlub jaamu yàlla ba xam ne sam da koo boyal nga jël ko daal di koy euh, warlu solo ki la chekk kooku tàbbi na ci bidaa kooku ñëw daal di koy saxoo saxoo boobu nga jublu ca mbir ma mooy pas-pas daal di cay lalu kooku def na bidaa waaye comme daf koo saxoo te la tax mu saxoo ko ko am ay duruuf muayyana moo tax dafa am lu war comme ni mu ko joxee ci exemple kooku la chek neful bidaa mosoo demee ci da ngay gis ki nga xam ne mooy benn ndongo cheikh bun baz rahimahullah bañ ko laajee question bi لك السؤال هل تصدق بقدر معين قد يكون ثابتا في يوم معين من كل أسبوع ولكن بدون اعتقاد نعم سنيتها أو على سبيل الإلزام ولكن فقط لإتاحة الظروف مثل هذا يعتبر بدعة لا بمعي تصديق دخ دي, دي تصدق بوك دي صرخ جاب بس معين ديكو صرخ chaque semaine bis boobu ngay saraxe waaye li ko waral mooy nekkul da nga koo gëm ne lii sunna la déedéet bis boobu waaye dafa am lu ko waral rek moo tax nga la saxoo ko dafa am ay nuruf yoo xam ne waral ngay saxoo bis boobu moo am jot wala leneen ndax loolu bi daal mu ne taxsiisu muslim ibaada bi damanin aw makanin muayyan lam yarid bihi sharcu من غير اعتقاد أن لذلك الزمان أو المكان فضل معين من جارج البس بوخ من عبادة ولا بوكا آه، بس بوخ من آه، بس آه، لو جلد بجل بس دارك يجعل أب جام يالله ولا أب لير يجعل أب جام يالله بوخ من نيوتش شريعة عندك نموم جمط نبيس بوبو نونو ولا ولا بوك مكان بوبو ولا لي بوبو dafa am ab ngëneel bu bu mu buñ ko jagleel wa innama li darfin yurad la fa yahtaju maahu ila hada taxsis kon ay mbir yo xam ñoo koy gaar moo tax muy jagleel ko bisoo laysa min al bida fi shay lolou dara lolou de ko bida lolou loolu ta don bida wala basa bihi non lañu leral bu indi ay waxi borom bokku na ko bani ma waxi cheikh bun rahimu rahimahullah mi ko laaji yi tontu bu melni nii laaj bu bu melni nii لاج ما رايكم فيما يفعل بعض الائمه من تخصيص لاجون ما رايكم فيما يفعل بعض الائمه من تخصيص قدر معين من القران لكل ركعه ولكل ليله تخصيص لنكو لاج تخصيص نعم، اي ائمه اللي يجل آه، بين قدر معين جل ب آه، دوك جغللكو من دوغ القران جغللكو آه، شكرك شي غوديغو غدو شيخ بن la muy tontu mooy la aalama fi hada shay'an am na kon Cheikh Ibn Baz rahimahullah soo amee benn mu naan iltizam la mu kon la jublu ko iltizam ba mooy ku iltizam mbir ma daal di coy ak pas-pas nga xam ne mooy taarif ba nga xam ne moo ñëw ci fuqaha yi suñ ko waxee charan waaye waa ji ñaari mbir yooyu lay lay jaxase ba mu jàpp ne li may wax dafay wuteek waxu Cheikh Ibn Baz li may wax Cheikh Ibn Baz waxi euh, nangoom bi ngir seen réer ga euh, ne da wuteek say say زي آه، شيخ لي ما يوخي شيء من شيخ وثيمين شيخ آه، حتى بي الشاطبي آه، لولجي لولج جبل حتى كانوا شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم الجوزي لول موي سني سني وكل لول موي لجيتو موي fekkee ne nit ki dafay ñëw daal di saxoo mbir saxoo ba mu ko saxoo dafa am ay zuruuf ay mbir ko waral am ay asbaab bi ko waral mu saxoo ko kooku nekkul dañu jublu ne kooku moo def ci biir waaye ko saxoo mbir nag jublu ci mbir ma wala saxoo ko sax waaye da jàpp ne mbir bi bi sàngam am na am na fadl wala mun na ko def loolu la fekk dafay dugg ci xam ne mooy mooy bidaa te loolu la borom xam yi daal di daal di ŋaññi gis nga ahlul bidaa seen réer loolu dañuy gis loo xam ne waxi borom xam-xam yi yoo xam mënuñu koo dégg wala ñu ne mënuñu koo dégg laaj ku leen ko leeralal day ñëw dafa am tanaaqud comme ni al kuffaar yi def ak li nga xam ne mooy mooy islam lan mooy topp nag leeral li nga xam ne eh, ndax moom dafay ñëw bëgg a saxal ne l'islam mën na ñëw lépp lu am rek lépp lu mboyal rek mën ngaa ñëw tënk ko nu mu la neexee loolu dugg ci bidaa mu jàpp na loolu mooy wal wahabiya léegi nañ dellu ci waxu salafu saalih ci ay bidaa yu bare yoo xam ne dañ ko ay mbir dañ ko jàppee bidaa l'islam daf ko boyal ay nit tënk ko imma wutal ko sabab imma ñu wutal ko ab bis imma ñu wutal ko li nga xam ne mooy ab ab waxtu imma ñu wutal ko li nga xam ne mooy ay nombre imma ñu wutal ko ab kayfa imma ñu wutal ko makaan ñu daal di ñëw daal di koy tuddee bidaa ñu xool ndax moom day jël ñoon dëxiñ leen ci wahabiya wala dafay dellu ci réeram gi daal di tuub dellu ci yàlla suñu borom ki nga xam ne mooy naafi neen dafa gis eh, ibnu omar dafa gis benn waay daal di tisóoli ci wetam wa qad alta rajul ila janbi dafa toog ma daal tisóoli daal ne alhamdulilahi wasalaamu ala rasulillah Abdullah ibn Umar ne ko ñun de man su ma doon wax assalaamu ala rasulillah lay wax waaye lakin laysa hakada amal na rasulullah lii nga wax nii yonent bi jàngaluñ ko yonent bi lan lañ jàngal amal na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an naqula ida atasna alhamdulilah ala kulli xaal lam ñu jàngal ji la mu def mooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf koo digle lislam daf koo boyal sharia def koo boyal waa lu mu def def ko wutalub sabab boo xam ne lislam mu jox ko sabab boom mooy sababu tisóoli waaye fekkoon tafasil la wadd buy dox bii la daan waaye daan Ibnu Umar man mii lislaam da koo boyal damay boyal yow woo xam lu nga bëgg euh, wala bokk lislaam euh, daa boyal mbir bi kon lu ma neex mun naa koo defee su ma neexee sama tënku ko far nag loolu la koy tontu la moo tax Abdoulaye Omar daal di tere waa ji wala wax ko ne yonent bi jàngal ñu li mooy wutal sabab bu mu wutal mbir mi te lislaam wutal ko wutal ko wutalu ko sabab lan la xamee ne waa ji mbir bi du caa jublu ndax waa dafa def dafa def ci loo xam ne da cee boole li xam ne waa ji jublu mbir mi mooy dafa def mbir boo xam ne lisam da caa digle leneen mooy alhamdulilah moom mu ñu daal cay tegu mbir yokk ko ca loo xam ne dafa dafa boreel dafa am nit boo xam ne naan alqara'in alqati'atu addilala fa mbir yoo xam ne ñooy nekk ci ab mbir dafay leer ci la muy la muy la muy joxoñ la muy tegtale wata nit koo xam ne dafay jëlub jaamu yàlla di ko di ko saxoo suñu amul dalil ne moom lii da koo def ngir zuruuf eh, saxoo boobu muy saxoo jaamu yàlla ba la ñuy wan ne kon kii di ci jublu mbir ba lu dul bu ñëw nañu ah man de nag jublu mu ci lii lii moo tax moo tax fekkee ne waaye saa bu 18 safar ñëwee mu daal di jëli eh, xar di rendi xatta su choléra amee sax Euh, mu ne nit ñoo leen booloo su paree ne man jublu ma ci diw safar jàpp naa ne fadd ba amul diw safar même waaye du ma ko mos a changé xataa nit ñi dañoo a dee sa choléra du ma ko xam ne ne kon kii di cee jublu diw euh, boobu mu mbir ba la chaque ne bi daala waa ji donte sax saxut mun naam saxut mbir ba du ko def lay wane ne da cee jublu mbir ba mooy ne dafa ñëw def euh, ab jaamu yàlla ab zikr ginnaaw ba mu tisoolee ci loo xam ne da caa jiital loo xam ne islam digal leen ko mooy alhamdulilah kon li benn ba euh, <laughs> exemple la ci exemple yi nga xam ne euh, bari na euh, dañuy jël benn bu nekk rek dañ cee jël benn exemple wala ñaari exemple am na ama asar yu mel ni find yu bari na bokk na ca li nga xam ne Abul Aliya mu koy nettal ne moom ak ne nekk Abdullah ibn Umar ci ab voyage ñu daal di ñu war a julli ñu daal di ñu daal di noddu noddu ay xam mel waaye bam dafa ñëw daal di آه، يي كوما سي يوخو آه، نا الصلاة يا أهل الماء الصلاة قبل ما نبقى موجود لي بابري دافا دافا لاتشي كان مودون يوخو آه، ني نكو ني نكو ديولا موتاو نكو لا صليت ولا تليت خامنا جولي وو جانغو تي ليغا ديف ني شيطان شيطاني مولوكو ديغال أما كان في الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصالحين ما أغنى عن بدعتك هذه <laughs> mu ko ndax yow da nga gisut ci téere yàlla bek sunna yonente bi sallallahu alayhi wasallam loo xam ne doyloo mun na tànga doyloo sa bidaa jii nii mu tegaw inna annaasa la yaxduthuuna bida wa in raawha xasana illa ma amaatu sunna mu ne ni ngi ne dañu sos ab bidaa naam donte dañuy gis ne bida bu rafet la lu rey na ab sunna moo tax bu xam naa la foo gisu bida rek fekk fa fekk fa ab ab sunna foo gisul bidaa rek fekk fa ab sunna boo ma fa nekkoon ñaar du ko rey lii ibnu cheikh islam mi ngi koy indi ci charhu amda noonu la borom xam yi diggoon mbir ba moo tax kii di imam ahmed mbir mu mel ni tamit ab nit boo xam ne da doon ci diggante taraawa yi doon assola bañ ko ko teeree bañ ko ko laajee daf ko tuddee ne loolu lu bidaa la loo xam ne dañ ko dañ ko sos ci diina la noonu la Ibrahima Harbi euh, euh, naka noonu ab nit boo xam ne tamit euh, da wax saay bu ñëwee mu ngi nekk ci alfuru ibn muflih Ibrahima Harbi moom moo Ibrahima Harbi moom ak Bukhari ñoo jamono doo doon asaratul iqama la ko tuddee bidaa yunhawna anhu lan moo tere nit ñi. ñuy fàttali nit ñi ndax lii dafay dugg ci texte yu am yi mooy lan digle lu baax fàttali nit ñi lu baax jàppalante al taawun al birri wa taqwa lan moo tax ibnu amar tuddee ko bidaa lan moo tax imam ahmed tuddee ko bidaa lan moo ko borom xam-xam yi yëpp daal di tuddee mbir bi bidaa ku mel ni ibrahima xarabi ndaxte dañ ko wutal ab jamono joo xam ne dañ ko wutal ay sabab yoo xam ne lislaam wuddalu ko mbir ma daal di bàyyi la nga xam ne def la nga xam ne sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da koo da koo bàyyi woon mbir yi nga xam ne saraw saar yi doon nañ ko bañ mooy yàlla son daal wutal di boyal ab jaamu yàlla ci ba njëkk tudd mooy jaamu yàlla yàlla boyal euh, wutalu ko sabab euh, wala ko wutalee sabab ci yenn mbir la yenn mbir la ko mën na koo def wala boog nit ko jox ko sabab boo xam ne yàlla jox ko ko ab yonantaam bokk na ci tamit wutal ab jaam yàlla melokaan boo xam ne yàlla jox ko melokaan boobu wutalu ko ko bokk na ca abu musa al ashari ba mu ñëwee fekk abdulaay masud radiyallaahu anhu mu toog mu ne ko gis naa jàkk mbir boo xam ne dama ko gisee eh, mbir la boo xam ne eh, rafetlu ma ko eh, mu daal ne ko soo bëgg sa mun na la ko woon gis naa di ñoom dañoo toog jàkk ja kii ñuy toog naan allah ne allahu téeméer wax leen laa ilaha illa téeméer subhanallah téeméer ab la ma sub nu wax lan nga leen wax mu ne ko waxuma dara bay di xaar rek yow di la xaar nga ñëw ma xolloo ciy digle abdullahi ibnu mas'ud ba mu ñëwee fekk nañu toog ne ma hada alladi araakum tasnaun xadis bi xadis bu siiw la ñoom de ñu ne ko ñun de qaalu ya aba abdillah ya aba abdirahman ñu ne ko abdirahman ñun de ñun de ay day xeer la yoom dañ jële di ci compte suñuy takbir suñuy tahlil suñuy tasbih subhanallah la ilaha illallah allahu akbar mooy leen de eh, soo neexee da ngeen compte seeni bàkkaar <laughs> eh, wayhakum ya ummata muhammad toskare ñeen la leen su fekkee mën nañ ko waxee noonu yéen a gaaw a torox yéen saxaaba yonente yi sallallahu alayhi wasallam ñoo ngi nii bari fi lool seen seen ngi nii eh, Eh, wala yére yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nii eh, ràppagut yaa ngi nii eh, benn xormaa dugg ca damagu benn damagu maa ngi waat ni imma da ngeen nekk ci yoon boo xam ne moo gën a jub yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen buntub ndax kuy def bidaa loolu la ñaar imma yow da ngaa jàpp ne yaa raw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imma denk ci réer waaye fi ñu jëlee ci hadis bi ci asar bi waaye ñii lañ def lan lañ def lu tax mu nekk bida ndax subhanallah yàlla da koo tere dig la chak digle na ko alhamdulilah la chak digle na ko allahu akbar kuy werante yàlla subhanahu taala digle na ko lan moo tax ma masud tuddee ko bida mbir bi ba wax leen wax ju rëy jii nii konte leen seen i bidaa konte leen seen i bàkkaar toskare ñeel na leen ndax da imma du ngeen mën tub réer wala raw ngeen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gën ngeen ko rafetum jub lépp mooy lan mooy dañoo boyal dañoo ñëw tënk yàlla subhaanahu wa taala eh, eh, daal di boyal ba tey soo jëlee eh, suñ doon topp li ngaan moo ci ñëw ci wax yi borom xam-xam du jeex xam na dañu am occasion del ci mais ma gis audio mi a bari ba tey soo ñëwee ci li nga xam ne mooy daal di jëlu bërëb boo xam ne yàlla subhaanahu wa taala digluwu ca wala bokk ci def fa jaamu yàlla bam yàlla da koo boyal waaye jublu ci bërëb ba loolu way ta shakk ne da dafay dugg ci bidaa soo demee ci alxaafid ibnu alxaafid ibnu xajar wala xaafid ibnu rajab na abdullahi ibnu ibn radiallahu anhu tere wala boog tuddee bida jigéen boo xam ne dafay itikaaf ci itikaaf ci këram ab tam bu tere ko mooy jël ba mu jël ab jaamu yàlla tënk ko ci ab makaan boo xam ne lislaam euh, tënk ko foofu kii di euh, sayd musayyib euh, sayd ibn musayyib radiyallahu rahimahullah da nga gis ne dafa gis nit di julli ginnaaw ba fajar xotti ko julli ràkko yu bare bare bare bare Saïd daal di koy tere mu tourné waaye tourné na ko yàlla ba Muhammad dana ko jàpp ne yàlla dafa may mbugal ci julli mooy li nit ñi di wax nii rek ñii ñeen di wax ni mooy ne yàlla daf may mbugal ci julli rek lan la ko euh, Saïd wax yàlla du la mbugal ci julli mais da lay mbugal walakin azabuka ala xilaafi sunna li nga wuteeg li nga xam ne mooy euh, mooy euh, mooy sunna su noon topp mbir yi duñ fi juge te maa ngi soo ñu bari xam naa ne ci mun nañoo yem ci exemple yooyu suñuy wax ci xam ne mooy sunna tarkiya dinañu permettre ñu dellusiwaat ci ak waxi euh, borom xam-xam salih moom ne salafu salih ñoom gis bu tënk mbir yooyu ibaada yooyu gis na ñoom lañ ko doon tuddee mooy euh, mooy euh, mooy bidaa ci loolu nag ci la xam-xam yi nga ne borom xam sunna yi daal di jaar daal di koy déggee mbir mi daal di jàngale ko seen i seen i seen i téere ngir won nit lan mooy bidaa daal koy jële ci yonent bi sallallahu alayhi آه، وسلم مات الإمام الشاطبي رحمه الله قبل آه، مالكي مم خوما دنجي بولي وهابية ولا دنجي كلا الوهابية وربما تنمي كي كي بدعة تسعون يفك من الشاطبي رحمه الله كي ديفني bi nga ديفني ne بو bu bu yaatu ba mu def ci bidaa donte moom la muy taarif ci li الوسائل والبن ميرلا آه، من البدع طريق في الدين مخترعة تداهي الشرعية يقصد بسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه فمي يوهي اكزامبل يوهي نغام نميري نغام نتكوي ديف دي من كوي بوخون تيك شريعة آه، دي ابل جي دين يالا جي موين نكوي ديف تعبدا مدفجلا ومنها الالتزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة كون خامني موكوي saxoo la tax mu koy saxool la tax mu koy def mooy da koy def mel ni kuy toppandoo sharia da koy def qasdan da koy def ci pas-pasam da koy saxool ngir jàpp ne mbir ma saxoo gii mu ko saxoo ci anam gii mu koy defee dafa am ab moo xam am nombre la moo xam makaan la moo xam ab sabab la dafa am euh, yoon ba ca la cam euh, fi may jeex rek mooy euh, benn téere bu am solo boo xam dafa ñëw daal di tëgg li nga xam ne mooy euh, bidaa tëgg ko ci ay qawaid comme ni ñuy indi al qawaid al fiqhiya moo tax maa ngi euh, conseil mbokk yi ku ci mun a dellu ci téere boobu dina am mbir yu bare bare bare yoo xam ne leeral na ko fa euh, leeraay bu am solo daal di basé wu ci nga xam ne mooy al kitaabu wa sunna ala fahmi salafu saalih ak mbir yoo xam ne yu sew la yoo xam ne dakoy leeral ci wàllu bidaa تيمه المعربي أبو أجيزان هي فيكمون أنت في القاعدة القاعدة العشرون متدك الأمر المطلق لا يمكن امتثاله إلا بتحسين معين مولانا الوهدين بجكاو ما هي ليهم الأمر المطلق كان منتخلات آه، جي آه، ميربوها من ذهنيلة وعي منوكو إني وداركو جفي لدوت مه دنكو أم بين جغلل بقو جغلل لا شك يالله سنة yaa ayyuha alladina amanu adkurullaha dikran kathira ndax mën ngaa dikr yàlla te dikroo ko ci ab nombre benn lay daw la ñaaral ñett su fekkee ne da nga nombre boobu da ko jël nag eh, da nga tàmbali di dikr yàlla dix fois la chaque ba tey yaa ngaa boyal ndax da nga ko na nanu boyaloo da ngaa soo tàmbalee ci dix fois boobu nag saxoo ko ñun iltisam la ko le iltisam boobu su fekkee ne nit ka ca jublu di fois yooyu mu saxoo ko ñëpp jublu ko ca di fois yi nga xam ne su xëyoon bis defut dix fois yi foog mu foog mu fay ko su ko ëppalee sax dafay tiit wala koy wàññi euh, day def lépp du ko ëppal ñoo xam ne kon kii di ci jublu dix kooku daal di tabi ci bidaa waaye moom dafay euh, dix fois yooyu temps ba mu am loolu la ko may mënu koo weesu moo tax mu yem ci dix fois yooyu noonu wala day bañ di euh, di jaxasu almuhim leneen yóbbu ko ci moo yem ci dix fois yooyu kenn du ko wax def na دفن بلا مواد أخمي آه، آه، قاعدة من هذه القاعدة ترجع إلى باب الوسائل والمطلق يتصور وجود والمطلق يتصور وجوده في الأذهان وإن وقع ضرورة فلا بد من التعيين الإعقاء الفعل بإيجاده من حيث الزمان والمكان والحال والمقدار كالامر بيتقرق بغداد جهي اي اكزامبل لا شك لي حتى انا صح شارع دي كون فنك لو خامني نيت منو سي كوم خيل دو منا du ci mëna a wenante ndaa dafa nek lo xam dafa lèr ci nusus nga xam moy mooy nusuusu muy léral ñaari jëkle yoy nit ki jëglel ab jaam yool ay mbir waye la ko ci yóbbu nekkut pass pass ak ki koy jëglel te ko yóbbu ab wasila rek ab yor la bo xam non la mëna def mu ne alfarqu bayna tayin alfarqu bayna tayinayni mooy ñaari jëri adna al awwal wasila moy ba jitu moy tayin bi nga xam koy def rek ngir ne mëno def mbir mi te defoo ko ab nombre su ko saxoo mu defé ko saxoo ko ngir ni am lu ko war mu saxoo ko waaye nekkul jubluwaay ci boppam mu ne la mooy différence bi an al awwal wasila wa thani maqsad beneen ba lol ab djublu jubluwaay la wa min huna kan al awwal mutajarrad mutajarrad an al qasd wa niyya mota ba ci jitu moom la ngay gis ni niyya nekkut ab yene wala jubluwaayam am lu waral wa aani qasdu ta'yin lan imtithal la shak ni jëf ji mom dam lu mu ci jublu daal di koy jagleen mbir sàngam wala sax mu saxoo ko mbir sàngam loolu amut yéene moom ci am da koo defee noonu rek amma thani fa innahu mutadaman lil qasdi wan niya bi ci topp nag moom dafa ànd ak dafa làmboog li nga xam ne mooy jëf dafa ànd li nga xam ne mooy jubluwaay moo tax mu nekk taqyid طيب سنون لي ليرى لي عندي أي مبير يبرى يبرى يبرى يبرى دي ليرى مبير بيجي أدلة يو هم نمي جوا جي القرآن جو نجي سنة جوا جي وحي برام خم خمي داري دب تولين هم نموي موي أي إخل إسبيك لو بري بري جدا موي دلالة الإطلاق والعموم دلالة اللزوم التقييد والخصوص إلى آخره آه dinañ amaat bisimilah subhanahu wa taala dellu si maa ngi jégalu bu baax a baax a baax baax ci audio yi ni mu bëree nii ala kulli xal ay mbir yoo xam ne soo koy leeral foog mu xaw a gudd donte sax li ma ci bëggoon wax yëpp waxaguma ko xam naa dañ koy arrêté fii ba suba incha allah ñu jëm ko continuer asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aywa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waa alquran ak sunna rek Cheikh Fadel. mbokk audio yi ñu ngi koy topp depuis bi nga ko tàmbalee ba fii alhamdulilah macha allah dama ci amoon benn laaj rek benn bi laaj la benn bi taaliq tuuti rek bi njëkk bi laaj bi mooy euh, asaru ibnu omar boobu euh, non non asaru abdullah ibnu masud boobu dama tàmbali dégg ñenn ci ñoom ñi wax naan wérul waaye nag dégguma kenn ci ñoom ku ni wérul fii la wérulee déedéet dégguma nag ku ku ku ci indi lay wuy wane mais daal maa ngi dégg ñu koy waxantoo ñoom moy ñi soxlu ñi nga xamanteni dal euh, dañuy jëfëndiko bidaa yi défendre bidaa dégg na ñu ñaan wérul moy laj asar bobu manam lu ci borom xam yi wax moy benn mooy benn bi nga xamanteni moy laj bi benn bi lay doon rek moy mbooleem yi nga fi wax ni man dal Fadel japp na ni jang taxul xam ko dara taxul xam ko ndimbalu suñu borom la li nak fi ma xamé moy man mang ko xamé ci sama bop man lu jitu yalla dama wërsegal sunna jang kat la won man biñu xamé lañuy la dara xam-xam lu mooy lag yàgg yitteel la woon dem naa ba doon jéem a tafsir quran boobu gisuma sunna waaye yii nii masul xaw leer sama bopp yii bu ko ñu daal mos sax jàpp ni kii dafa feebar kon daal xam naa daal ndimbalu suñu borom am na ci sunna daal ñu ko yàlla wërsëgal nañ sant yàlla bu baax a baax a baax te xam ne lii moom ndimbalu yàlla rek rek moo mën a tax ko moom loolu moom lu wér a wér mbokk aywa jazaakumullahu njàngale mi am na solo yàlla na liiw bi macha allah sa tax am na solo amna ci lay jitu sax moy ci taliq bi nga def euh démb rek xamu bëgg ma ngi ñu xalaat da mu doon liir ba yem ci ibn qayyim madarij saalikin mu ci wax yàlla subhanahu wa taala def ne yaa ayuha alladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dul fadli alazim furqaan boobu yàlla subhaanahu wa taala di wax foofu mooy furqaan bi lay permettre nga mën a tàqale dëgg ak neen moo tax nit ki looy gën di ragal yàlla sunu boroom rek di mën a gën di tàqale dëgg ak neen waaye gën a sori ragal yàlla di gën a sori mën a tàqale dëgg ak neen nga gis di gën a réer te la chakk ñi li nga xam mooy taqwa comme ni ko ibn Habib di waxee tabii boobu eh, mooy ragal yàlla mooy lan eh, mooy jëfle la la yàlla subhanahu wa taala digal ci leerug yàlla teg ko ci xam-xam ngir wut li nga xam ne mooy euh, ngërmaan yàlla waaye bàyyi la yàlla subhanahu wa taala tere ci leerug yàlla xam-xam ngir ragal li nga xam mooy mbugalu yàlla suñu borom loolu soo ko seetlante dañuy gis ne yàlla li gën a mag lim ñu digal mooy tawhid di ñii seen problème fa la tàmbalee ci tawhid xatta ci rububiya la nga xam ne ay quraish yenn saa ci yenn détails yi amuñ seen problème wala ci gëna mag yi amuñ ci woon problème da ngay gis ne ñoom nañ ci am problème jëli nit leen jox ay mbir yoo xam ne min xasaais rab min llahi subhanahu wa taala di ko layal ci tawhid al asma wa sifat xaddis wala xaraj suñu gëmut ne yàlla nekkut fenn ñu ngi gëm ne yàlla mi ngi fépp soo duggee ci tawhid uluhiya foofu nag la mbir bi gën a dee yéeme ndax su ko kon ñooñu yan mooy base taqwa li gën a rëy taqwa dañ koy ñàkk la ca topp topp sunna yonent bi sal al mutaabaa loolu moom léegi eh, seenu diine seeni génti baay ak seeni génti maam seen dox doxiinu yaay ak i eh, moo leen gënal doxiinu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koy wax imma bi lisaani maqaalihim imma bi lisaani xaalihim dañ koy wax mu leer nañ fu ñu ne waaw loolu islam euh, lu mu boyal mën nañ ko seen diine yëpp mi ci loolu la léegi ci bidaa xasana la soo jëloon bidaa xasana seen diine li ñu tuddee ñoom bidaa xasana dara ko des sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la sax dañ koy saboote wala duñ ko jëfee sikkim ah, dañ koy soofantal cëkkal dañ koy soofantal euh, yu baree bëri yoo xam ne amul kuy werante ne yonent bi noonu la meloon loolu bal si am ñu koy saboote ci ñoom la nga xam ne yéen da koo ba nag ñu lay wutali lay ne yonent bi sallallahu mun nañ koo def la yonent bi def dañ koy saboté dañ ko fay baax di ko saboté donte xam nañ yonent bi def na ko kenn du ci la mu defut ñuy wan nit ñi mën nañ ko def yi loolu ku ñu loolu laa fekk ne taqwa boobu amoo ko kon furqaan bi mënoo ko am ndax bu jaafar naan eh, di wax ci eh, aaya bi na mooy eh, bàyyi bokk na bitit moo taru xiyaan خيانته وخيانة رسوله بندي دي وور يالا كو يونتام ني تي وور يالا كو يونتام لا نيو دي نب لا يالا كو يونتام جانغالي دي خير لا يالا كو يونتام جانغالي لا شك الفرقان بوب مونو نيو كو مونو كو ام واي ليغا خامني سا موي موي نيو تي خيرو نيت سوني واخي تقوى موي ساخو جامو يالا نونتي جامو يالا شك ني اخلاص بمو جيتو موي توحيد باك متابعه بس امبوت امبوت لوبو بحقيقه بل حقيقه الامر امو waaye ñoom sa bal sax la nga xam mooy ñëw ci bopp nit ñi mooy takkoo jaamu yàlla ba xam moom lañ xamee woon ñu jiitu ci tawa tasawuf ba am ñeen ñoom ñu ci ëppal loolu sax lañ ko amatut ñoom wallahi alazim eh, nekkuñu nit ñoo xam ne kenn warante wu ne waxuma dëddu àdduna waaye dañuy daw ñoom di wuti àdduna dàquñu zikr kenn <laughs> beruwuñu sax waxuma dama beru so waaye dañuy jaxasoo soo fu saaqi ëpp mooy yàlla am soo demee fekk fa Sénégal fekk fa ña ëpp su nekkul ñoom kese du doon chrétien yi ibaadu yi moom ku leen fi gis ñu wane leen télé bi ne ibaadu ba mu ngi fa ña fay nekk moo ñuy askanelu ñoom ci ñuy askanelew seen i tànta seen i bàyyi seen i comme ñun tamit <laughs> suñuy suñuy suñuy mag ak suñuy rakk ak et cetera waaye fa lañ askanelew ku ci def lu bon loolu dem daal di taxaw sa sëriñ jébbalu mu ñaanal la nga dem ndax xaw ma da ngay bëri yi xaw ma ngay agressé xamul loo na nga indi xaalis la chaque ñooñu la nga xam ne sax moo taqwaa bu ndaw boobu sax nga xam ne waroon nañ koo am ci eh, dëdd yenn mbir yi waxuma la ñu ëppal ci jaamu yàlla de comme tasawuf yenn ñu jiitu ñu sax dëdd yenn mbir yi sax waxuma dañuy dëdd dañuy dem wuti lu xaraam la chaque ñooñu taqwaa ba mënuñ ko am moo tax suñu liggéey jafe ndax comme ni ko waxee rek xam-xam leer la yàlla def ci xol leer la goo xam ne yàlla moo koy def ci xol ngir nit ki daal di koy mën a mun a mun a dëkku. moo tax ñoom dañu yokku sa far nag xam nga loolu soo doon soo doy liir di jàng toog di jàng xam-xam léegoo foog nga am ko ngir mën a tamyiz bayna al-haqq wal baatil waaye ñoom loolu sa far nag amuñu ko nag taayal ci xam-xam taqwa ba nga waroon am amoo ko <laughs> euh, euh, nekk koo xam ne euh, doon doo doo def effort yi nga xam ne moom war a def ngir jàng xam-xam la fekk ne foo xam ne moo tax nag la fekk ne comme ni nga ko waxee rek pour ñu dégg mbir yi tawfiqu yàlla subhaanahu wa taala rek moo euh, moo leen ci moo ci mën a jënd nit waaye euh, bismillah subhaanahu yàlla subhaanahu wa taala ñoo dugg ci ñoom euh, mën na yàlla subhaanahu wa def ñu dégg mbir yi am lu mu fàtte sax mooy boole ci nga xam ne mooy <laughs> xam ne day gis dëgg daal di jaar feneen loolu war na mbir yi la fekk ni ko mën a dégg. li xam ne mooy ci asar bi asar bi la fekk ñoom ahlul bida lañuy doxee. mooy lu na arrangé wul ñaari mbir yi la ñuy wër imma daal di koy tawil tawil boo xam ne dañ sori eh, déggin bi nga xam ne moom lañ ko war a dégg moo xam ci làkku arab wala bokk ci la ko salaw sa déggee woon eh, su fekkee ne mënuñu ko tawil dañ koy da dañ koy eh, dàq mu jéem ko bañ a wéral ñu gën a sori ñoom nag moom bal sax ñoom lañ koy jël teg fële waaye asar bi la chakk ne soo jëlee turuq yi ñëw yëpp ak shawahid soo ko boolee day doon lu wér soo ko jëlee nag ci euh, benn par benn di nga gis ne ci euh, sanad yi di nga ca fekk ay ay ilal waaye soo boolee turuq yëpp boolee lépp da ngay gis ne day dëgërante euh, te la muy xam ne moo ciy sax mooy ne lu lu wér la